yëkkati naa lu ne ma ne la lu ne am na ci gouvernement président Macky Sall bàjjo bi turbine yéen kaay naan man woon nañu nag ci gouvernement goo xam ne fast track la xale ya di jaabaa jolle boobu terme réew mépp ànd di riirandoo fast track fast track fast track fast track ate sabar gu tas ñu ne déeta waaye man la Sall ne leen fast track tàbbil leen ko géej bëggatuma léegi nag gouvernement de combat laa indi ate ñu ne guerre te moo ne day combat combat gi Sénégal fa mu ne woon ci xiif ci ndóol ci tumranke démb fa mu nekkoon ci yorin gu bon daal paase wu ko ñu ne ñu gouvernement bu combat lan la ñu xeex ci réew mi yéen kaayub dee média bi naan ko dara tey nag danoo woo nag ci gouvernement de campagne tey nag laaj ba mooy mbaa duñ ñu andil gouvernement de campagne ndax nag élection présidentielle bi moom nee na jàmm suñu kanam wax ji wax ji mooy sàll ak njabootam taluñu lu dul présidentielle bi sàll tabub candidat am naan riir mi riir mi ma ne la amadu Ba moom laa bëgg mu wutuma bu ma fi jógee tur bi naan ko ndànk ndax nag lii fal gémmiñu ñu yegg ci présidentielle bi nañ dem ci gouvernement gi tas ngeen tasar gouvernement gi ñetti fan a ngi nii askan wi di xaar ba tey France daal di xidéem lettu leen nu firiw leen waaye nag ñoom moom sunu xel moom sunu gémmiñ dañuy laaj tur bi naan yow sàll ma ne la ban gouvernement nga nar a jox sénégalais yi ndax Amadou Ba moom day toog fa yàllaahu waaye équipe bu bees bi nga xam ne Amadou Ba koy jiite président Macky Sall ndax nag dina soppi dundu góorgóorlu Elassane Sall naan kon soppi dundu góorgóorlu nag moom moo di réew moo xam ni lépp seer góorgóorlu sa ngéem facture courant jéggi góor góorgóorlu sa ngéem ndaw yi nga xam ne xëyuñu te léegi ñu ngi ci góorgóorlu xale yi nga xam ne ñu ngi màngaani ndax dana dakk tey le seen bakkan si géej gi ndax ñàkkub yaakaar ci réew mi ndax nag Sénégal gii nga xam ne daanaka waxuma la sa këru bopp de waaye location daal dinay métti ba jéggi dayoo ndax dina dakk Alassane naan kon yow président Macky Sall sañ naa la laajit sa gouvernement gu bees gi bu taxawee yow Sall nag ndax yoon ma ne la dina jaareele mbir yi yoon ndax nag tëj beeg tëj gi mi ngi mel ni tulleeg ci réew mi kenn sañatul wax te nag Sall dinaa la laaj geneenug laaj El Hadj nay laaj de nan kon yow président Macky Sall ndax na gouvernement gu bees gii mënees na ci am yaakaar fukki at ak ñaara ngi nii ngay soppi coppeet ci bii teg ci bee bee ne ko rajax waaye sénégalais yi mën la gisuñu ci benn seen bopp bu ñëw daanaka mooy yées ba fi nekkoon yow Sall ndax bu mujj bii nga xam ne mooy sa sàddi tàccu dang ci def sa kéemtalaay kattan ba mu jëmale sénégalais yi fa yaakaar am te yaakaar wi nag mooy laaj yi ma njëkk samp ndax sénégalais yi ma ne la laaj ci daan ci am tontu te gi mooy doon waaw déet ma ne la ñu tàbbal leen géej fa yàllaahu moo tax turbine nankoon kon attention président Macky Sall yaak Amadou Ba ma la yéen a ngi bëgg taxawal loo xam ne bës bu sottiwul wala jaarul yoon day mën na leen laal ba ci présidentielle bi ko l'enquête jeen naan man leen de xamal naa la ko moom président Macky Sall day mi ngi ci haute tension nag ndax nag Sall dafa ay bëgg-bëggam ay jege ñaale amadu Ba am seeni bëgg-bëgg dañoo bëgg nag daanaka bëgg-bëgg yooyee méngoo daal tase wala it ku ci nekk ci ñoom ñaar daal di bàyyi intérêt moroomam topp wi gën te dogal bu ci président Macky Macky Sall jël fi mu ne mën naa andi ay conséquences ci présidentielle yi à tout moment te lii mën na wàññi doole ak Benno Bokk Yaakaar moment l'observateur naan kon fi mu ne day lamp yi yéex naa tàkk te président Macky Sall moo yey nag yéexataal lamp yi moom Sall ngaari lam tooro buur géde mani la dogal waa ngi bopp bi waaye jël ko moo jafe la ko waral moom moo di buggul jaxasoo benn yoon wala jaxasa kàtt gi moom président Macky Sall buggul benn yoon kenn mer xool yey bëx-bëxi fitna daal di jógee ci Benno Bokk Yaakaar Sall bëggul ndax nag fi ku ci Sall jël jëlul bu la neexee gedd te gedd sa yaay ay doo ko dégg ndax ay gi moom dafa jeex fegal na turbine naan kon sama laaj ga ñëwati na de ban gouvernement yow président Macky Sall ngay taxawal ci njiitalu nag Amadou Ba le point yéene kaay naan man Amadou Ba moomee Pape Modou Fall directeur de l'emploi nee na fukki junni signature di ay ji dina ko koy yët booba vox populi ma ngi may xamal ne baaba Babacar Sall ma ngay jokkoor maa jog jokkoor leen waa yeewi askan wi naan leen man rek maa fay candidat juróom ñeent am na fa te tey jii man la ñuy jori xeer naan maay traître boobaa ma ne la jàmm ji anamu l'observateur naan man docteur Abdourahmane Diouf as candidat la naan fu sénégalais nekk ci porox ndool la Sénégal yi naa fa dem wax sama programme dafa ma jot a dem daal daanaka xol bu naqari laa fa jëlee ndax daraa amul ci réew mi maanaam daal Sénégal mooy réew moo xam ne mënees na ko méngalet boo xam ne daanaka amul njiit Le Quotidien Le Quotidien naan kon bu amee ay njiiti day bàyyi nañ sénégalais ak seen bopp xoolal ma rek njàng meeg njàngale mi ci privé bi téeméer boo jël ci l'école privée bi juróom-ñeent yi amuñu autorisation juróom-ñaari ay école yoo xam ne kenn déclaré jàngalewu leen téeméer boo jël fukk ak juróom ñett ci ñi nga xam ne ñoo fay jàngale di fa tàggat amuñu ay diplôme laas naan maan booba Thierno Amadou si directeur général bu APS ma ngay xam le ni bari na ci journaliste yoo xam ne ñi ngi ci média gi waaye bukki la ñu yoo xam ne nañu sàngoo deru béy libération naan ñoon nañu wax ci bouteille yu gaz total yi bouteille yu orange yi mi ngi tukkal àddina gannaaw derkle tuuti kon mu def beneen jëyi tribune yéen kaay jox kàddu waa action citoyenne ñuy xam le ni la ñuy xaar président Macky Sall mooy présidentiel boo xam ne dina libre ñëpp daal di bokk Sénégal sénégalais yi daal di gis seen bopp ci gile présidentielle mooy dëgg ndax loo ci mënti waxit réew mi moom jaxasoo na jaxasoo goo xam ne kenn amatul droit téye kenn wala naj kenn te naan leen du ngeen jaar du ngeen fi jege l'info yéene kaay woow di ma xamal ne rentrée scolaire bi ca Malicounda Maguette Sène daal dina yàll yaale ay ndongoom daal di leen di gàtte ba maar day taali yemu ca waaye jàngalekat yi sax gis nañ ci seen bopp tribune yéene kaay naan maan moo taxit jàngalekat ya nekk foofee ca Malicounda daal dina rendre hommage Maguette Sène collectif directeur d'école ya nekk ca Malicounda Tambacounda naan kon atu yàlla sàkk table banc yi ñëw atu yàlla sàkk ay salle de classe yu yees daal di am ci commune bi ay photocopieuse ak ordinateur ak équipement am ci commune bi ay investissement ci wàllu njàng me njàngale mi mi ngi judd ci commune bi kon ek naan moo taxit résultat yu Malicounda atu yàlla sàkk day daal di jëm kanam te fii ak 2030 xel mën naa dal ci ney Malicounda day dina doon ci commune yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci réewum Sénégal le soleil yéen kaay naan Bill Gates daal dinay taxawal loo xam ne ñaar fukki milliards dina ko dugal ci Afrique ngir ñu defar ay daal di dàq yenn ciy wopp moom président Macky jël kàddu xamal leen ni ay wopp yu mel ni cancer mi ngi jaxase la mbaaje Sénégal rawatina nag dénduk Afrique àdduna wërngal këpp addu yàlla sàkk fukk juróom-ñeenti million ci doomu aadama daañu am yées cancer fukki million ci ñoom faatu juróom-ñaari téeméeri junniy Afrique dong dong la ñuy faatoo turbine naan koon waaye ak lu mën a am xel day mënta jóg ci moomi bu so sekk moom moomi dani mi nga xam ne faatoom ga ak tey autorité ba ci sénégalais lambda kilifa diine aada ak cosaan ñëpp àndandoo dem dem riir wuti góor gi ngir jébbal seen njaal bugaan gay dani mi doon borom këram turbine yéen kaay naan leen amoon na fi ndax dina amati moomi dani ca yar waak sell ga ca rafet jikko jaak mbaax ga moomi dani ci yiw gaak tekk gaak teey ga moomi dani ci joxoon cër doomu aadama moomi dani ci maandu ga moomi dani ci fonkoon diineem te di ko moom mi dani ci dignité ak personnalité mi dani ci doyloo boroomam ba xëy fekk ko yéen kaayub dee média bi ne ma ne la xel moo dul jógati ci moomi bu sa sekk mi ñu baayam coon bàllaago sekk a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm na waaye nag bàyyi fi jëw boo xam jëw bu amul solo la moom it dana géey kaddu yi rafet na ñëpp nag daa di wax ni moom it dana géey daa baax daa gore daa yiwti daa suturé bugaan ngay dani borom la nekk ak it nag doon koo xam ne ku jàpp sama liggéey la na ko yàlla yërëm xaar ko àjjana bugaan ngay dani nii am naa ci moom yaakaar de waaye nag bugaan ngay dani bi Amadou Ba ñëwee daa nay biral kaddoom de ci wetam ne cancer bii na ngeen ci jëm dara ndax mën ngeen ko cancer bii na ngeen ci jëm na ci def seen Pastef ba nga xam ni ñi muy faat dina wàññeeku a de candidat laa eh, eh, la yóbbu ca kaso ba laal ko bu baax a baax ba tax na ñoom dañoo war def stage laa ci kaso bi dañ leen yóbbu ci kaso bi bu ko defee ñu daal di fay def stage di kaddu professeur Amsatou Sow Sidibé Seynabou Bèye moom nag yor lépp loo xam jëm ci wàllu ah def na ko waaye nag gannaaw fourniture ya mu joxe moom Issakha foofee ca Pikine Est nekk nii day ma nga jëm ci financement ya et eh, financement yaa ngay dikk de jëm ci jigéen ñi Seynabou Bèye nii Issakha Diop daal monsieur ministre fi nekk nii ma ngay dal ci kaw jigéen ñi de ak jàmm jërëjëf Mbaye Karim xam naa suba incha allah daañu fi waat ci yeneen i chronique euh, digitale woyofal bi wax nga dëgg c'est vrai que oh, j'ai vu benn vidéo même bu euh, Serigne Mbacke bu nekk fii ci kër gi euh, bu ko def c'est il une vidéo très spontanée mais on a vu que sur TikTok muy ngi toll pratiquement ci mille neuf cent seize like tellement dafa daal di waxal askanu lëmb ndax facture courant yi ni mu yokkee nii les gens ne comprennent pas surtout pour les consommateurs qui utilisent Fall nañu déglu sëñ Mbacke Mbow. salaamaaleykum yi sonn nañu damm nañu dee ay waaye lii moom lii moom diisal la waaye du woyofal courant bi seer na gaaw naa jeex waaye nañu dimbali ngir jëm yàlla lekk gi seer na naan gi seer eh, eh, courant bi seer téléphone bi seer te léegi nag yokkuñu seer ñu dara waaye nit ñaa ngi bëgg a dee ngir yàlla woyofal moom diisal la ngir yàlla nañu ko fi jëlee wala nu andi nañu xamoon bokk mu ngi bëgga a dee voilà wax na wax na dëgg c'est très dommage mais. Euh,